mbokki Tivaouane mhm. département salaamaaleykum mbokki Sénégal ñi ngi nuyu képp kuy kilifa diine nekk ci département de Tivaouane di jiital ci nuyoo bi xalif général des Tidianes xalifu Njaasaan xalifu Pire ak bépp xalif bu nekk ci département bi bépp kilifa diine bu nekk ci département bi ak bépp kilifa aada ak képp koo xam ni yaa ngi doon une personnalité dans le département de Tivaouane tey le comité électoral départemental du département de Tivaouane moo ñoon def une évaluation mu doon lën boo xam ni ci suba ba léegi ñu ngi ci regroupé lépp luy responsable des communes yi nga xam ni ñoom la ñu seqaloon liggéey bi ak aussi suñu honorable député yi nga xam ni yàlla def na ni tey ñoo ñuy représenté ci assemblée nationale muy l'honorable député Assane Diop l'honorable député Massata Samb honorable député Fatou Gaye nga xam ni dafa am empêchement donc ñu seqoon ak ñoom lël boo xam ni comité électoral départemental bi da doon def évaluation boo xam ni tey kii di bis coordonnateur bi le maire Modou Fall ak ñi seqoon commission yi muy commission finance logistique commission communication yeneen démembrement yëpp ak comité électoraux yi nga xam ne yoo nekk ci bi doon jàngat li nga xam ni moom moo jugee ci élection yi li ñu ci njëkk def nag mooy remercier population département de Tivaouane képp koo xam ni amoon nga taxawaay pour que changement am waaye aussi di remercier ñi voté wul sax ak ñun ndax jàpp nañu ni élection yi département Tivaouane moom moo ci gagné donc remerciement boobu nag du ñu ci fàtte les responsables yi nga xam ne ñoom ñoo doon ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ci commune yi bu ñu jàngatee suñu li nga xam ni moom mooy évaluation élection yi gis nañu ni am nañu ci ndam lu yaatoo yaatoo yaatoo ñu koy sante suñu borom di ñaan yàlla ndam loolu yàlla na jig Sénégal yàlla na jig département bi di ci féliciter suñu honorable député yi nga xam ni fal nañu leen ci ndam loolu fukki communes yi daanaka ñun dañ koo gañe bennoo huit yi rek la gañe te am na ci wit yoo xam ni sax bu ñu xoolee vote yi nga xam ni nii nit ñi dañ koo juum voté ko ci wàllu bu ñu ñëwoon ñun dañ leen di gagné fu mel ni commune u Pekes bu ñu xoolee sax yeneen communes yi nga xam ne ñun gagné ko avancé bañ fa def am na solo torop parce que boo jëlee commune bi nga xam ni mooy bu mairie de te ay mairie ñu ngi nekkoon fa nekkoon candidat nekkoon koo xam ne nii am na solo torop ci Benno Bokk Yaakaar lam ñu fa rawee bëriwul. ndax daanaka dañoo séddoo sax vote yi ñun am nañu trois mille et quelques moom mu am quatre mille te boo xoolee waa wàllu euh, mi nga xam ne nii list bi dafa présent foofu te bokk ci ñun am na sax ñu vote ca list boobu kon jàpp nañ ni foofu ñun ndam lañ fa am ndax la mu ñu rawee woon ci élection locale yi dépassé nañ ko ba multiplier ko lu baree baree bare mën nañoo citer aussi commune Meewaan mën nañoo citer commune Ñaaxeen nga xam ni fukki baat ak ñett lañ ñu mën nañoo citer commune bi nga xam ni mooy Morolan nga xam ni dañ fa amaat voix yu baree baree bare même bu fa gañewul ak Pambal bi nga xam ni déjà maire ba fa nekkoon nekkoon ci suñ ñun transhumé te teewul lañ ñu fa rawee bëriwul waaye di aussi am ndam lu yaatu ci yeneen i commune ndax ñoom lañ ñu rawee ci commune yooyu bu ñu xoolee rek commune bii ñuy tuddee commune Daaru Xudus rek daanaka dab na ñoom euh, li nga xam ne moom la ñu rawee woon sax ci commune yooyu waxuma laak nag yeneen communes yi ñëw Tivaouane Pire Chérif Lo Koul euh, Mboro Nooto vraiment ñu am fa ay ndam yu yaatoo yaatu des millier de voix lañ leen farale mu doon dóor yu metti loolu nag du ñun lu ñu bett ndaxte xam nañu ni intercoalition bi boo xoolee élection yu fi jaar yépp boo jëlee li ko composé suñu boolee seeni voix ñun ñooy raw Benno Bokk Yaakaar kon xamoon nañu ni ñun war nañ leen a mën a daan bu yaatu waaye nag ci daan boobu pour mu leer ñun comité bi dañoo jël suñuy matuwaay yu mat sëkk matuwaay yi moo doon déjà ñu am ay représentants ci commune yépp ak bureau de loolu nag ñu ci sargal ñi nekk ci commune yi waaye aussi ñi diriger woon opération électorale di féliciter aussi jeunes yi di féliciter jigéen ñi nga xam ni campagne bi vraiment ñi ngi woon ci suñu gannaaw di ñu dooleel ndam loolu nag. déjà bokk na ci bu ñuy xool ci ndam yi am Sénégal yi ci gën a fës ndax Tivaouane ñëpp xam nañu dayoo bi département bi am ci wàllu mine ci wàllu pêche ci wàllu industrie ci wàllu li nga xam ni moom mooy agriculture ci diine ak ci fànn yu baree baree bari comme département bi enjeu bu amoon solo la te xamoon nañu fi mu tolloon le parti au pouvoir ñu dugal ci alal yu baree baree baree bare ba am na commune yoo xam ne ni ay millions yu bari lañ ko dugal pour rek jéem a détourner li nga xam ni moom mooy vote citoyen yi waaye sénégalais yi xam nañu Tivaouane waaye yi xam nañu que ni déjà alal jooju seen alal la voté nañu massivement la l'intercoalition wàllu yeewi donc loolu defe naa ni victoire bu am sol ñu ci nag féliciter leaders yi o niveau national mënuñu leen ce ñàkk bañ a di ci jiital euh, Serigne Moustapha si nga xam ni leader la ci parti PUR di ci teg maître Abdoulaye Wade nga xam ni vraiment intercoalition bi ak Karim Wade indi na ndam lu yaatoo yaatu le président Ousmane Sonko gis nañu ko sentir nañu caravane wàllu bi fii ak caravane. nationale di ci gërëm le président Khalifa Sall nga xam ni moom conférence des leaders moo ko jiite di ci gërëm Déthié Fall nga mandataire national Cheikh Youm Aïda Mbodj mënuñoo lim ñépp waaye di ci lim leaderu intercoalition bi yépp nga xam ni comprendre nañu ni tey suñu ànd mooy suñu ndam ànd boobu nag jàngat nañ ko te aussi comme ñoom ni ñu ko defee ci contrat bi nga xam ne nii moom la ñuy wéyal ci assemblée nationale mu doon benn lëkkaloo boo xam ne nii intercoalition bi bi mu jógee ci li nga xam ni mooy élection yi dina ko amal ci biir hémicycle bi suñu député yi ñaax nañ leen ci ñu bokk si ñi nga xam ne nii ñooy gën a dëgëral ànd boobu léegi bi tamit ñaax nañu suñuy député yi wax leen ni leen Tivaouane rek département bi boo ci nekkee ambassadeur nga mu doon département bu am solo ñu yàgg di ko lim ci taarixu Sénégal ku wax Kajoor xam ni ñu am jom lañu ñu am fulla lañu ñu am fayda lañu bu ñuy xool rek la joor jóg ba muy dem de dañu ko yagoon te xamoon na la ko fa doon la ko fa doon fekk kon ñun tradition la ci ñoo xam ne nii suñuy ndaw lañ ñu yab leen yab bi nag fekk na ñoom ñu xam seeni mission yab bi du lenn lu ñu doon député askan wi doon député yoo xam ne exemple la ñuy doon ci législature bi doon député yoo xam ne nii préoccupation département bi nekk na loo xam ne nii lu leen ñor Tivaouane jigéen ñi sonn nañu ndaw ñi sonn nañu ñi fi nekk sonn nañu toolu yi fi newoon sax léegi pour bay fi dina jafe ndax industrie yi rey nañ lu bëri nangu suuf yi enjeux yi ñoom ñoo ñu ko gën a xam am na ci lu bëri loo xam ne ni ñoom ñii def nañu tuuru département bi yàgg nañ koo def avant ñu nekk député kon ñooñu xam nañu li leen yóbbu assemblée te aussi ñun duñu leen bàyyi ginnaaw dañuy nekk seen ginnaaw di leen dooleel doon seen i conseiller doon aussi seen dëgërlaay di wax ni coalition bi aussi au niveau départemental ànd nañu trop ci décision bi nga xam ni moom la leader yi jël bañ a bokk ci élection au conseil des collectivités territoriales wax nañu ni ñun ñi nga xam ne nii dañoo am ay conseillers dinañu wax ñépp que moo doon boobu dinañ ko suivre à la lettre di wax aussi que dëgërlaayu coalition bi bu yàqu de du yàqoo ci waawoon ndaxte ñun xam nañu njariñ bi te intercoalition bi ñu nekk wàllu ñi nekk yeewi askan wi ak ñi nga xam ne ni ñi ngi woon ci gox yu bees dem na ba fi mu toll daf cee am ay relation yoo xam ne sax dépassé na politique loolu nag su amee defe naa ni collaboration bu sincère la collaboration boo xam ne ni esprit patriotique ak don de soi ak li nga xam ni mooy sursaut malgré mooy yi bëriwul woon malgré difficultés yi bëri woon na waaye taxaw nañu tem ba nga xam ni ndam li am nañ ko mu yaatoo yaatu ñu ciy remercier sénégalais yépp di yam foofu ci kàddu bi di jox le maire Modou Fall vice coordonnateur de l'intercoalition mu sànni ci ay kàddu bu ñu paree ñu jox les honorables députés. dem yow Merci. Nous sommes donc à Théaon pour faire l'évaluation des élections du 31 juillet passé. Élections relatives au député de la 14e législature. Tout d'abord, vous nous permettez de saluer tous les guides religieux qui sont dans le département de Tiaon et de les remercier profondément, fond du cœur. Mais aussi remercier et saluer tous les notables du département de Tiaon Mais ces remerciements bon particulièrement à l'endroit de la jeunesse et des femmes, qui, depuis le début du processus électoral, se sont mobilisées pour accompagner l'intercoalition Yewi Wallo du département de Tiawa. Mais aussi, nous remercions très sincèrement tous les coordonnateurs des 18 communes du département de Tivaouane qui ont abattu un travail de titan qui ont abattu un travail basé sur l'intelligence contrairement à l'autre temps où c'était surtout l'orgueil c'était surtout l'argent qui prévalait ainsi donc avec cette victoire inédite dans les annales département de Tivaouane nous ne faisons encore remercier cette jeunesse, ces femmes, mais aussi les guides religieux qui n'ont cessé de prier pour cette victoire de l'intercoalition. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, c'était pour faire l'évaluation de tout ce processus électoral. Et certainement, il y avait des difficultés, il y avait des obstacles. Mais comme j'ai dit, avec la volonté, l'homme peut soulever des montagnes. Mais aussi, avec la détermination de tout ce qui composait l'intercoalition, nous, on était sûrs de notre victoire. <coughs> Pourquoi nous étions sûrs de notre victoire Parce que c'était la proximité avec la population, C'était la complicité avec la population que nous étions sûrs que l'argent ne va pas servir à grand chose. Mais aussi, c'était la jeunesse face à ce qui devait partir à la retraite. Et ils le sont, définitivement. Inch'Allah, avec cette évaluation, nos députés qui sont là, à Saint-Diop, Massata Samb et honorable Fatou Gaye qui s'est excusé nous sommes sûrs que ils vont dignement représenter le département de Tivaouane et au-delà pour le peuple sénégalais parce que ça aussi donc que nous attendons d'eux nous ne voulons pas un député d'un parti nous ne voulons pas d'un député d'une coalition nous voulons un député qui défend l'intérêt des Sénégalais Et avec cette évaluation-là, tout le monde a pris la parole pour le rappeler vraiment leur mission. C'est d'abord de voter des lois pour les Sénégalais, de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi de nous représenter dignement. Et aujourd'hui, avec cette évaluation-là, nous avons mis vraiment les points sur les i. Tout n'était pas rose. Mais, comme c'est une évaluation, on va en toutes les leçons pour que demain encore, on va gagner le département de Piaon. Et comme l'a dit le coordonnateur, nous souhaitons que cette intercoalition perdure jusqu'en 2024 et pourquoi pas au-delà parce qu'on est sûr de gagner l'élection de 2024. Et pour ce, on lance encore un appel à tout un chacun dont déjà de commencer à préparer ces élections-là, qui se profilent à l'horizon et qui sont fondamentales pour le développement du Sénégal ou bien pour l'avenir du Sénégal. Pour terminer, encore une fois, à vous la presse aussi, nous disons bravo. Pendant toute notre campagne, vous nous avez suivis partout. Et si on a réussi à faire connaître ce, qui se faisait sur le terrain, c'est grâce à vous. Donc, merci. Et certainement, on vous donne encore rendez-vous pour les élections à venir ou, ou bien pour les événements à venir. Je vous remercie. Merci. voilà discours en français. jiitale nuyoo suñu kilifa bi ci dëkk bi. remercier ñëpp nag ginnaaw bi ñu yàlla defalee ndam <coughs> le 31 juillet bi passé mu nekk loo xam ni guléet euh, la ñuy wax opposition gagné département Tivaouane ak commune waaye loolu day firnde rek kan euh, askan bi jox nañu confiance euh, ba yàlla def élection yi ñu remporté ko ñu leen xamal nag loolu dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan ngir buñ demee assemblée nationale mën a représenter département Tivaouane ak peuple sénégalais bi yëpp xam nañ ni comme ni ma ko waxee rek suñu euh, le coordonnateur Aliou Badon bi ak le vice coordonnateur euh, monsieur le maire Modou Fall comme ni ñu ko waxee ñu ci dellusiwaat mais euh, liñ ci apporté rek mooy. gën rassurer ñi nga xam ni tey ñoo tax ñu mën a dem fële assemblée nationale pour nekkal leen mais li may wax rek chaque jour loo xam ni kàddu goo xam ni yow rek moomu loolu war nga boo koy yóbbu képp koo xam ni rek am na ci wàll soo ko mënee demandé soutien nga xam ni soo lan la fay doyee di nga ko mën a matale xam naa kàddu yi du gudd eh, dañ koy yemale boobu rek. salaamaaleykum département de Tivaouane maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi comme ñu ma jiitu ñu ko defee mooy nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi nuyu képp koo xam ne aussi notable nga te dëkk département de Tivaouane di nuyu aussi ak di gërëm di sant le coordonnateur de l'intercoalition Aliou Badara Mboup ak son vice coordonnateur muy le maire Modou le maire de Kour maa ngi nuyu aussi di sant di gërëm équipe bi nga xam ni ñoom lañ àndaloon yëpp di wax ni wax dëgg yàlla metti woon na jafe woon na waaye nag réussir nañ ko donc mu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di wax ni ñun nag euh, dañuy ñu war a jëm assemblée nationale am ay mission yoo xamante ni jàpp naa ni moom moo nu fa war yóbbu kon dañuy xam ni département Tivaouane département bu riche la waaye ñi ko dëkkee ñoom dañoo ndóol loolu nag li koy indi du dara lu dul yàgg am ay député <clears throat> yoo xam ni yàgg na noo dem assemblée nationale waaye doo dégg mukk ñu tudd turu Tivaouane xëy na liñ naan bay ci say wóom député lañu pour Sénégal gépp ak diaspora waaye nag fii nga xam ne fi la cosaanoo te wër ko ay yoonu yoon xam jafe-jafe yi askan wi jànkoonteel foofu mën nañ faa doore ndax doore fa weesuwul nga xam ni kat fii ay usine a ngi fi mën naa ko bañ a lim waaye amul jeunesse bi amuñu fa accès ndax loolu lépp li ko indi mooy amul centre de formation bu leen mën a bu leen mën a jaarale ba ñu mën a génn dem GCO wala ñu dem ICS mbaa ñu dem MDL euh, wala ñu dem aussi ci centrale à charbon yi wala centrale éolien bi wala Tobempo wala yu demee donc di wax ni dëkk la boo département la aussi boo xam ne bari na pollution boo xamante ni. xeex nañ ko ba tàyyi muy rey garab yi jox nit ñi ay maladie pulmonaire te loolu du fi bàyyi mukk askan wi ndax day rey garab di wax ni aussi département la boo xam ni wax dëgg yàlla problème mu <clears throat> problème réseau sax dafa am ci diggante yoo xamante ni tey danga naan dans le Kayor gis nañu ni tali bi nga xamante nii moo dem ba Thielmaxa sax jafe-jafe la ndax xolli woon nañ ko ci defar bi tey jii boo doon dem Mewante ci rang-rang ngay jaar dem Pambal ci rang-rang ngay jaar ba yegg soo doon dem ndànk noonu soo doon dem Morolan ba fulum noonu kon mission bi rëy na boo doon dugg tey Chérif Lo rek nga xam ni ci rang-rang ngay jaar ba yegg foofu di wax ni loolu lépp ay jafe-jafe la yu ne ci département bi waaye nag kenn musula taxaw dina ko lijjantil kon ñun am nañu loo xamante ni tey opportunité la pour ñu mën a liggéeyal sunu askan pour ñu mën a liggéeyal département bi pour ñu mën a liggéeyal Sénégal loolu nag dinañ ko saisir bu baax a baax a baax te dinañ ci am taxawaay bu wér ba nga xamante ni du ñu gàcceel ñi nga xam ni ñoo jëloon seeni voix jox ñu ko ñi nga xamante ni aussi dañ doon laam-laamle bu ñu fa defee ay fan dinañu xam di nekkati ñoom defoon nañu benn choix waaye c'était le mauvais choix donc loolu laa amoon ci kàddu yoo xam ni bëggoon naa ko ci sànni ndax de façon ramassée rek laa indi loolu waaye problème yi ëpp na loolu ndax xam nañu département bi bu wér xam nañu ni ndox mu baax sax boo xasee ba génn daaru xuddoos ba kera ngay dem Fass booy ndox yaa nga fay gis nit ñi di ko naan buñ la waxee ni la ku ko naan wér waxu waxuñu la lu mu xam ndax ndox moo xam ne boo ko tegee cinq minutes après ci taatu taatu siwo bi mel na okra lañ fa sotti loolu ku la ne doo ko naanee di nga wér loolu dalaa wax rek ni la naanal màndi waaye am na leneen lu ci mën a mën a fekk donc di leen jaajëfal bu baax di sant aussi ñi nga xamante ni ñoo nekk dans les dix huit commune abaat dafa un travail extraordinaire un travail remarquable di leen wax ni intercoalition bi de ñëw na ci waxtoom xëy na dañuy ñaan rek à que mu sax dañuy ñaan à ce que mu continuer ba li nga xamante nii moom la ñu war a redresser ci réew mi lépp ñu mën koo redresser ànd ko liggéey ko taxawaay bi yépp ma sëkk ba loolu lépp yàlla defal na ko di leen sant bu baax di leen gërëm du ma guddal donc foofu laa doon yemale kàddu yi jërë ngeen